wa rahmatullah sëriñ bi <clears throat> kilifa gi ñu ngi lay nuyu si nuyu bu gën a tedd muy asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di wax ne nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a di wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin balaa may tàmbali ma présenté délégation bu ma àndal yaakaar naa ne kii moom war ngeen ko miin mooy délégué régional bi Pape Moussa Thiam moom mu représenté fii ci région de Thiès ak Diourbel bu ñu boole tuddee ko délégation régionale centre ouest dama koy tooñ sax naan ko yow sa air bi du régional mais religieux la ndaxte ku boole Thiès ak Diourbel ci diine ci biir Sénégal ëmb nga lu mag lu am importance te mu taxawee ko it fees ko ba macha allah ñu ngi leen koy dénk sëriñ bi si délégation it maa ngi ànd ak. Bassirou Sylla moom mooy directeur principal qualité sécurité ak environnement bu Senelec gi yëpp ki moom mooy Papa Toby Gaye mooy directeur principal équipement maanaam luy projet yëpp moom moom laa ko dénk nekk na koo xam ne nag Bécaye war ngeen ko xàmmee bu baax a baax ndaxte dëkk yooyu noonu yëpp suñu paree moom moo koy toppatoo moom tëbi kay Samba Dieng mu ngi ne la mooy directeur distribution que le Ousmane Diallo di liggéey ak moom chef de département coordination régionale région yi madame Ba Tabarou Ndoye mooy directeur principal commercial maanaam commercial Sénélec yëpp moom moo ko yore mu topp ci Ndeye Fatou Sarr madam Diallo mooy directrice des ressources humaines madame géey a ngi si topp muy sama attaché nga xam ne si li may liggéey yëpp moom may jàppale ñeneen ñi si des nag waa délégation bi yaakaar naa ne Pape Moussa moom leen. non non fële laa seen délégation bi na le. agence principale de Tivaouane. waaw waa agence principale Tivaouane yëpp. nga xam ne ñoom ñoo leen yore ñëw nañ. Omar Ndiaye mooy chef d'agence bi. Omar Ndiaye mooy chef d'agence bi ngoog kii Modou Marème mooy chef service distribution bu délégation bi maa ngi ànd ak kii Babacar Sow moom yaakaar naa ne xàmmee ngeen ko bu baax moom mooy chef de service communication externe kële Abdou Aziz Fall conseil spécial la Djibi moom mooy liggéey ak Papa Tobi moom moo yore projet électrification yu jëm ci wàllu réseau bi Pape Mbow mooy directeur approvisionnement kële di Ahmadine Dida Diagne mooy directeur bu yore wàllu communication Yaya Mané ngi nele mooy chef de service gestion contrôle ci délégation bi maanaam daal sëriñ bi ñu ngi lay wax ne ànd nañoo directeur Senelec yépp ndaxte fii mënuñu fi ñëw si délégation bu tuuti mënuñu fi ñëw it muy am ñu manqué suñu waree am lu ñu fi dégg walla lu ñu fi war a régler moo tax ñu def délégation bi toll nii mbas mi sax moo tax ñeneen ñëpp ñëwuñ waaye su dul woon loolu délégation bi dina gën a mag waaye délégation bi nu mu toll nii bu ñu xoolee qualitativement luy directeur Senelec ñëw di wax ne dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax ndaxte dalaloon nga ñu fi daaw yàlla may ñu ñu fekkee ren bu ñu fi jógee daaw nga ñaanaloon ñu ñu ñëwoon di suñu soxla wax nga ñaanal ak sëriñ bi ñaanal Senelec ñaanal Sénégal kon suñu ñëwaat tey fii tey fekkee dañuy ñëw di sant ndaxte dëgg dëgg nag suñu waxee rek gis nañ yokkute ci biir Senelec gis nañ yokkute it mun nañ wax ci Sénégal ndaxte élage Hadj Bekkaay wax na ko léegi si wàllu courant moom ku xool fu ñu jóge woon ak fu ñu yegg si jamono bi yaakaaruñ waxuñ ne problème amatul de mais problème yi changé nañ problème yu ñu daan wax du problème yooyu la ñuy wax tey waaye nag xam nañ ne mission service public moo demee noonu dina nekk loo xam ne loo def def def rek du doy moo tax bu ñu ñëwee fu mel nii nga xam ne mooy bërëb bu mun a yokk complété suñu liggéey day jaadu ñu ñëw taxaw fi wax nañ ma nag wàllu village yëpp jël nañ engagement bi nañ ko def bu soobee yàlla chef service distribution bi wax na ma léegi ne commencé nañ études yi bu soobee yàlla bu études yi pare dinañ ci jublu soose it tamit foog naa ne bokkoon na ci dëkk yiw soxaloon sëriñ bi lool travaux yi pare nañ kañ nga wax lañ koy taal ah waaw mardi 27 bu soobee yàlla dinañ ko taal bu la soobee délégué baa ngi nii moo may représenté mm. délégation boo mën a yóbbu mu ànd ak moom ñu def mise en service bi mm. waa soose xamit mm-hmm. ne liggéey boobu ci barke sëñ bi moo tax ñu def ko ndaxte moo ñu ko santoon mm. ñu def ko nañ doon rafet lu lool ngeen ñëw ànd ak moom taal ko ñaanal ndaxte loolu rek ñun mooy suñu mission président loolu la sant ñëpp xam nañ président fi mu teg kër diine yi ñu ngi koy gis ñu ngi siy teg suñu bët dara du gën a leer bërëb bii nii ñu nekk kon boog buy def loolu wax ñu lu ñuy wax wan ñi tamit fu ñu war a jaar yaakaar naa ne lépp lu ñu def fii si Njaasaan pour topp ndigalam la lépp lu ñu fi defit xeeb nañ ko ndax lu Ndiassane représenté biir Sénégal laaj Bekaay wax na ko léegi sëriñ bi bëgg na am leer waaye bëgg na it ñeneen ñi leer moo tax dinañ entamé études yi yëpp bu soobee yàlla lépp li nga xamante nii war na si def dinañ ko def te bës bu ñu paree it comme ni ñu def ci soose su ma mënul ñëw it moom dina ñëw ñu sëriñ bi lii ñu waxoon pare nañ ko. ban jour ak nan ngeen bëggee ñu taaleen ko loolu mooy suñu mission muy mission service public moo tax ñu ngi ñaan sëriñ bi ngeen ñaanal Senelec ñu yokkute ndaxte yàlla dimbale nañu ñu am société boo xam ne métti woon na lool waaye it président ñëw ànd ak sénégalais yi ba jafe-jafe yi ñu nekkoon ñu génnee ko si te kenn jaayul Senelec ndaxte gis nañ si yeneen dëkk yi nu muy demee société yu tolloon fu Senelec toll pour ñu génnee leen si benn solution rek moo amoon mooy waa bitim réew ñëw ñu jaay leen ko ñu yokk courant bi yokk njëg yi defar kii bi courant bi dellu waaye président moom bu mu ñëwee dafa taxaw ne lii mën naa ko régler ak Sénégalais yu ma fi fekk loolu la def si quatre ñu trouver solution ba yaakaar naa ne léegi ñëpp teg nañ ci seen bët mm. kon suñu amee performance yu mel noonu nag ku am xalaat bi demee noonu am leadership boobu bu ñu taxawee fii dañuy sàkku ngeen ñaanal ko te ambition mi yemul foofu mun nañu bëgg naa fii ak 2025 fépp fu sénégalais nekk ci biir Sénégal xanaa mu bañ ko de waaye courant war na jaar ci buntu këram ba su buggee mu xëccal boppam maanaam accès universel à l'électricité ñu bëri nee nañ ñu nag seen ambition bi du mën a nekk waaye ñun am nañ ci ngëm-ngëm ñu ngi ciy dox ay jéego moo tax it ñuy sàkku ñaan yéene boobu mu am pour Sénégal ngeen ñaanal ko yàlla may ko kattan ak clairvoyance boo xam ne dina ko mën a yeggali ndaxte amu ci beneen objectif bu dul xam lu courant représenté si dundu doomu aadama si jamono yi ñu nekk tey ak yéene bu mu am ci population bi mu ne loolu laa bëgg ngeen liggéeyal ci lañ nekk moo tax dëkk yi ni ñuy électrifier yëpp ñu ngi si programme yi nag tëral nañ ko lu mu soxla xam nañ ko fu ñu ko war a uutee it ñu ngi waxtaan ak ñoom ba yàlla suñu dimbalee ak si seeni ñaan ñu sottil ko jàmm loolu mooy suñu yéene di wax daal ne sëriñ bi kontaan nañ lool ñëwaat teew fii pour non seulement léegi bu njëkk ba buñ daan def tournée yi DG bi da daan ñëw pour rassurer sëriñ bi ne dinaa mën a joxe courant bu doy waaye ñun dépassé nañ loolu léegi léegi suñu ñëwee fii day nekk jamono bilan ak yéen jamono sàkku jamono jublu ci futur mais pas pour rassurer loolu moo tax ñu sawar lool te day nekk moment yoo xam ne it man daf ma neex ndaxte dina may permettre moo mun a génn xool non seulement lu sama équipe yi di def mais aussi jàkkaarloog kilifa yi nga xam ne ñoom la Sénégal am ñoom la Sénégal yaakaar kon moo tax daal ñu ngi tàllal suñu loxo di sàkku ñaan bu baax di wax ne daal fii ñëw fi toujours dañ si am kontaante ndax ñu ñu fiy fekk ndax liñ fiy fekk it kon moo tax daal sëriñ bi kàddu yooyu lañ bëggoon yëkkati di jéggalu nag bu baax a baax a baax su amee ci loo xam ne dëng na si ñun rek la waaye wax dëgg yàlla dañuy kontaan lool ak fierté ak cawarte pour ñëw teew fii mu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ bi nee na ñu ngi sant yàlla bu baax toftal di ci toftal nuyoo. bu bàyyi ci xalifa bi. ak njaboot gi la ko jox. ne di la ko jox. ci sa tolluwaay. ci ak sa dayo. yàgg ñi nga àndal. nuyoo bu mel noonu. ne yóbbante nuyoo bu mel noonu. ci ki yàlla dogal. mu jiite réew mi. muy président Macky Sall ak ña koy gunge di ko jàppale ci réew mi ne di la xamal ni ëtt bii nga toog ëtt fi kenn ku sa bopp yaag ñi nga àndal euh, ne bépp sénégalais bu waaxu ba dugg ci ëtt bi sëriñ bi jàppe na la ak njaboot jàppe na la xarit jàppe na la ak mbokk rawatina nag yow mii nee naga ni daaw lañu fi toogoon ni sa première yoon ci ëtt bi nga saafonte njaboot gi. ak njaboot gi. sëriñ bi wax la bëgg-bëggam. sëriñ nga nangul ko ko ci saase. nga nangul ko la nga nangu woon. ne la nga nangu ngi ko dénk. ñi ngi nekk ak ñun. ñi ci région bi ak département bi matal nañu ko. délégué bii di Moussa Thiam. ne délégué bii di Moussa Thiam. ak ñi mu àndal ñi mu àndal. lépp loo waxoon fii. lépp loo waxoon fii. te nga dénk leen ko. te ko. nee def nañu ko. ba mu paase sunu njort. su amul nee su amul woon itam. dina am nu mu nee di fa dina am nu mu waxee. ba boo fi jógee. ba nga xam ni nga xam ni loolu amul. waaye dafa am nag. te dañu wax ni as nee danoo wax ni as gor. suñ ko defalee teraanga. bu nu ko defalee teraanga. te mënu koo fay. te mënu koo fay. na ko biral. na ko biral. ci ak cant. ak ñaan. tey mën na maa wax nee tey mën naa wax ni. ñi àndal te ñi nga àndal te nga yilif leen. soo génnoon fii ci mbedd njaasaan yi di dox di dox daje ku sant kunta mbaa ku ko yaakaar dana la def kilifa tey ne li tax mooy dañuy wax ni as gor soo ko bëggee yilif te mënoo ko génne bëggoo koo tëj bëgguloo koo menacé te nga bëgg koo yilif defal ko teraanga boo ko defalee teraanga day tàbbi ci xol te xol lu ci dugg jeex na nit nag soo xasee moom xolam yilif nga ko te as gor boo ko defalee teraanga yilif nga ko kon teraanga ji sëñ beeg njaboot gi ak ñi aju ci sëriñ bi gis nañu ko sedd na it seen xol bu baax euh, kontaan ne lii am nañ ci te lool. Sénélec bi mu amee yàgg na. bi mu amee yàgg na. fii ci Sénégal fii ci Sénégal. waaye li ñu gis. waaye li ñu gis. diggante daaw ak ren diggante daaw ak ren. wax dëgg yàlla ci yokkute ci yokkute. akuk jàppandal jàppandal. xam naa li ñu naan tombé waral ay. daal li naan tombé moo waral ay gaaf. waaye loolu daal sa wërsëg la. kon yàlla nañ kon yàlla nañ ko muurloo. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ci des mooy événement bi tax ñu du ko def wóor na ma ni wóor na ma ni gëm nga ni ku yokk yàlla moo la yokk yàlla nag soo bëggee egg ca moom da ngay jaar ci ku nu fonk ci ku mu fonk ki mu fonk kan la mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam war a taxawal bésam. ñu war a taxawal nag bésam. yàlla it santaane ko. yàlla it santaane ko. ku defal yonent ne ku defal yonent bi. gërëm ko. gërëm ko. yàlla bëgg ne yàlla bëgg la. dal di lay gërëm. daal lay gërëm. loolu moo tax. loolu moo tax. jàpp nañ ni. jàpp nañ ni. Sénégal li ko wuutale ak réew yi ci des. Sénégal li ko wuutale ak réew yi ci des. lii rek la lii rek la. bëgg ku baax. bëgg ñu baax. bëgg nañu yonent ne bëgg nañu yonent bi. bëgg nañu kilifay diine bëgg nañu kilifay diine yi. lii tegtal la ci loolu. kon ci kàddu sëriñ bi ci kàddu sëriñ bi. ñu ngi lay yónnee cant. ñu ngi lay yónnee cant. ak ngërëm. nga jottalil ko nga njiitu réew mi. ndax lii lépp taxawaayam la. waaye nag. da nga yónni nit. da nga yónni nit. mbaa nga dénk ko. mbaa ko. la nga ko dénk. ko def du ko def na nga ko bëggee ne lool day am waaye nga dénk nit mu gën laa sawar ci la nga ko dénk ba defe ko noo xam ne raw na njort loolu chance la lool la la yàlla na too kon yàlla na yàlla yokk la dëgëral la dooleel la yokku la sa promotion bu baax waaye ñu ngi lay seddeel ni ñu nekk ak ñun daal wax dëgg yàlla sëriñ bi gërëm na leen njaboot gi it gërëm na leen coose sëriñ bi daf cee taxaw ak yeneen i dëkk yoo xam ne xam nga ko njaboot gi ñëw nañ ci yow ba gaaral la ko muy bëgg-bëggu sëriñ bi sëriñ bi ci ay baayam loolu la donn loolu la nàmp tamit ñi fi nekkoon bu nu musaa di indi courant dañ leen di wax ni dëkkaale yi nu wër suñu mënta taal ñun soxlawunoo wunoo taal loolu rek itam la nit diine di jariñ ki am kàddu day yóbbu ki am yóbbaale ki amul kàddu ki am loxo bu gudd day yóbbaale ki loxoom guddul ki am man-man day yóbbaale ku tële lii rek la fi kilifa yi nekke ndokk yàlla nag bi leen yàlla boolee ñoo xam ni xam nañu bëgg-bëgg yi xam na nañu ni ñun ay sénégalais lañu te lekk ci ñam ba ñam wa jeex nga dese gàcce dara jaru ko ci àdduna amul lu dul jeex nag loo gis rek su dabee nit ki dana ko romb dana dem ci kanam dana dem ci keneen loolu mooy ñam woo xam ne da nga koo tiim lekk ko ba mu jeex gàcce des fa waaye ndokk yàlla ba nga defee lu rafet këru diine yëpp Sénégal gépp xam loolu kon jërëjëf yal na yàlla doole leen bu baax ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi nag ba léegi ni day beesal rek ndax dafa jaboot ndax dafa jaboot te ku jaboot du jàmbur ku jaboot du jàmbur tey su ko mënoon tey su ko mënoon ñëpp ñu mu jaboote. ñëpp ñu mu jaboote. ñi ko jege. ñi ko jege. ak ña ko sori. ak ña ko sori. kenn ku ne. daf lay fekk sa néeg. daf lay fekk sa néeg. fajal la sa aajo fajal la say aajo. dellu si waat toog. loolu nag bu ko mënul ci kartan. ne loolu su ko mënul ci kartan. yàlla dana ko nangul yéene ji. yàlla dana ko nangul yéene ji. su ko boolee ku mel ni yow. su ko boolee ku mel ni yow. nga xam ne am na loo ca man. xelam day gën a dal. day gën a dal. ndax bu la ko dénkee. ndax bu la ko dénkee. loo ca man. da nga ko def. am na yu ñu fi def am na yu ñu fi waxoon daaw. am na yu ñu fi waxoon daaw. yoo xam ne njaboot lañu. yoo xam ne njaboot lañu. ñu ngi ci wàllu seneleek bi. ñu ngi ci wàllu Sénélec bi. Assane Ndiaye. Assane Ndiaye. di bu Diouf di bu Diouf. Fatma mi nga xam ne. Fatma mi nga xam ne. mi ngi ci seen wet. mi ngi ci seen wet. délégué xam na ko. délégué xam na ko. mi liggéey ci Sénélec. mi ngi liggéey ci Sénélec. waaye ay at a ngi nii. waaye ay at a fa mu toog jógu fa. yokkute amu ko. yokkute te loolu tamit. sëñ bi yëg na ko amu ci lenn lu mu mën a def lu dul jooy la ko yow mii ñooñu nga xam ne ñooñu nga xam ne seen i demande seen i sëriñ bi joxoon nañu ko pour ñu eggale la ko yow ak yi ñëw nii ak bu déwénee yal nañu ko fekke yi ñëwaat lépp nag daanu ko teg sa loxo tey am nañ ci mbég yaakaar bu baax a baax a baax loolu daal sëriñ baa ngi la koy xamal di la ñaanal nag ak yokkute bu baax te yàlla aar la ñoo ngi déglu nag ñoo ngi xool itam ci média yi dégg nañu lépp xam na nañu lépp waaye lépp itam xam nañ ci fulla goo xam ne am nga ko bu baax lool la mën a junj duy dugg ci ay détails waaye am nga fulla taxaw nga ak fulla yal na la ci yàlla saxaw salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Kunta